asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi si bu seen site internet bi di 24 actu yi ñu desiwaat ak yéen ci seen naafilay weeri kor wi tey nag mu nekk guddi ñaar fukkeel gi ak ñeent juróom-benn rakaa lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon lexlaas ñetti yoon ñu bamtuwaat ko juróom-benn a nag ñetti sërmal lay doon juróom-benn a lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon lexlaas ñetti yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi